conseil constitutionnel dañ koy wax na xoolaat bu baax li ko daaf te mu revoiraat fichier woowaat candidat yooyu ngir mën a saytuwaat loolu parce que lu doywaar la te candidat yi duñ ko bàyyi candidat yëpp dinañu dajaloo dinañu attaqué décision yi nga xam ne nii jël nañ ko di éliminer pêle-mêle des ci lan nga def sa parrainage ba ñëw ñu vérifier ko lépp normal nga xam ne carte carte électeur yi carte d'identité yëpp disponible na ñu ne la ñii nekkuñ ci ci ci fichier bi te duñ la may parce que liñ ci jublu mooy la ñu la waxee ku mel ni Bassirou fay bu ñu la waxee ne la douze mille nekkul ci fichier bi waaye am na six mille doublon mu war a remplacer six mille doublon yi ñu ne ko quatre mille la war a wut bu indiwaatee six mille doublon yi la moo leen tere ne trois mille yi nekkuñ ci fichier